di Yacine Fall Yacine Fall daal dinay xam le ndege ni tey daal dina chamboulement bu mag dina am ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo di ambassadeurs yi ak euh, consul changement boobu noonu lan moo koy waral alors changement war na am ci ambassade yi ak consul war na am ci administration sénégalaise war na am ci euh, comme on appelle euh, fële war na am ci mm-hmm. kii numu mu tuddati secteur magistrature war na am ci secteur gendarmerie police ak leneen ak leneen ak leneen ak leneen donc forcément faw nu nu jërëjëf lii moom moom direct ñoo ànd faw ñu am am ñoo xam ni dañuy dañuy xaar euh, am ñoo xam ni xam nga tey bu ñuy def émission mm-hmm. ay kilifa yu mel ni Souleymane Thiam mm-hmm. di nu Mhm. dagan na ñu ñu sàkku euh, mhm. jox ñu information yëgal ñu rectifier ñu corriger ñu wala wala won ñu wala dëkkal li noo wax mhm. donc moom comme mu ngee woote bu ñu paree dañu kaa rappeler moom ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen kilifa yu mag yooyu nga xam ni bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoo ñu jiitu ci média won ñu ci lu bare ma wax la nag tey benn affaire boo xam ni euh, yàlla dogal na ko mu di xam nga lan li noo wax ci wàllu bu jëm ci Yacine Fall buñ la nomee ci bërëb da ngaa apporter quelque chose. Mm-hmm. boo apporté wul jarul ñu la faa teg changement yooyu jëm ci administration euh, la diplomatie sénégalaise c'est normal. Mm-hmm. amul leneen lu ko gëna a normal lu ko gën a jaar yoon lu ko gën a dëggu lu ko gën a war a mën a nekk ca anam yi mu gën a gaawee. Mm-hmm. da ngaa def audit soo defee audit xam li xew soo xamee li xew xam fi nga jëm. soo xamee fi nga jëm nag daal ne xaaral ma ànd ak ñii pour ñu yóbbu ñu fa. man mën fa àgg ak ñoom. li rek la changement yi dafa war a am à tous les niveaux. ci diplomatie ci magistrature ci police ci gendarmerie ci fépp. qu'est-ce qui s'est passé pendant douze ans. pendant douze ans on a fait mal à ce pays. ñan ñoo ko def. de bonnes gens correctement civilisés pourtant dans l'apparence ñii ci administration bi fii. financière ñii ci régie financière yi ñii ci feneen ak feneen ñii ci diplomatie ñii ci sécurité publique ñii ci feneen ak feneen ak feneen. Mhm. boo nekkee nguur bu bees ñëw bëgg a defoon nag da xool fa yàqu nga soppi. et on lou cela. on mhm. a on applaudit. Mhm. da ngay sauf que soo dee soppi nag doo soppi pour soppi. les meilleurs les plus travailleurs les plus loyaux et les plus sincères les plus dévoués à la tâche. am expérience. expertise mhm. doo leen changé. doo leen changé peut-être mën nga def réaménagement. Mhm. mais ñi nga xam ne dañ fa nekk parce que politique politicienne la wala ñi nga xam ne dañ fa nekk nekk ñoo xam ni moment bi ñuy sonal Sénégalais dañoo nekkoon ay complices ñooñu nag mën nañ leen tegg mhm. ñooñu mën nañ leen tegg yaa ngi koy wax ñu jiital li nga xamante ne ni moom moo di mérite. jiital li nga xamante ni tamit moom moo di compétence da ciy baax mais tey bu ñu nee nguur gu bees dañuy ñëw dañuy changer dañuy changer Pa Assane est-ce que nomination yi ni ñu ko gisee nekkul ni dañuy classer clientèle politique boo xamante ni dañu àndoon ak ñoom doon leen xeexal mais jiitalatuñu tamit li nga xam ne moom moo di compétence. ka falu nag ña àndoon ak yow bi nga xeex ngay ànd yàlla dëgg la bëgg. Mhm. soo faloo doon xeex ña àndoon ak yow ngay fal ci am compétence. ñi ci amul compétence nga xool neneen nooy def ak ñoom. Mhm. ñi am compétence am la li li nécessaire li liggéey bi laaj. Mhm. ñooñu faw nga jiital leen benn parce que confiance. beneen bi nag moo di ne attention à ne pas dugg ci le registre du conflit d'intérêt on aura beau soutenir. Mhm. mais ci par rapport à la morale am na loo xam ni day xaw diis soo nee par exemple le cas de Sophie. Zenga si di doom ci sanu yaay bi Yacine Fall di ñaan yàlla sàmm leen kattanal leen barkeel leen. Mm. dooleel leen ñu ñu réussir ka ci nekk fa nga nekk. Mm-hmm. mais ci moral xaw na diis. Mm-hmm. tey jii par exemple bu ma amoon choix man doon ñu laajoon ma sama xalaat humblement dama naan déet ut leen feneen fu ngeen ko yóbbu. comme bokkoon na ci xeex bi Sophie si a combattu. a mm-hmm. euh, rejoint le passif ci la ñu wax depuis deux mille dix huit. deux mille dix huit à deux mille vingt quatre su ci nit xeexee xam ni yemb na selon ses capacités. Mm-hmm. mais n'empêche dès lors que waajuram bu jigéen mu ngi ci fi nga xam ni à la station assez élevée de l'État conflit d'intérêt bi mën na bañ a nekk ci ay valeur ci ñi xam Yacine Fall dañuy ne valeur rek lay dund. Mm-hmm. donc xel mën naa dal ci foofu. mais beneen wàll ba moral mooy xaw a gêné wu tuuti. Mm-hmm. après quelqu'un me dira mais attention ce n'est pas parce que mon père est président de la République que je ne dois pas travailler dans l'État. attention je pense Sarkozy à un moment donné su ma jumul. Mm-hmm. Euh, et c'est ça pèse. Mm-hmm. parce que lu mënti xew. Mm-hmm. lan la ñu reproché woon la dynastie Faye lan la ñu reproché woon Abdoulaye Wade son fils Karim Meïssa Wade donc bi ñu ko daan reproché dans l'opposition le Pastef rechigné ne l'acceptait pas ak keneen ak keneen. donc arrivé à la station euh, suprême aujourd'hui yóbbul la sax wax na ma SNHLM Bassirou Kébé tey ci suba maa vraiment. Mhm. moi je fais partie de ceux-là qui soutiennent nouveau régime je, je je le dis urbi orbi principe la par rapport fa ñu jógee ak fa ñu bëgg a dem mhm. bu ñu demee nag ba gis leneen nag maar day ubsi pas parce que kon boobaa Sénégal day gën a tardé mhm. boobaa peut-être ñu jëlaat benn position mais pour le moment yàlla seereen ne dañoo julli sax di leen ñaanal ñu réussir parce Sénégal dafa soxla nguur buy réussir ñu jàll ko élever niveau bi dem ci leneen ma wax ne les nominations liées wax nañu le cas de Serigne Gueye Diop. de Serigne Gueye Diop avec sa progéniture. Mhm. yàlla na yàlla sàmm leen ñoom itam ça gêne. yàlla dëgg la bëgg de. dëgg la ça gêne. Mhm. et comme ça gêne il faut rectifier le tir. comment parce que la meilleure façon de rectifier le tir c'est c'est par exemple euh, bu fekkee ni que mën nañu defaat réaménagement déplacer nit bi nu def ko. mais est que su boobaa tamit dañuy céder ci à la pression. il ne s'agit pas de pression. il faut c'est pas une question de céder à une pression ou pas parce que africains yi li leen mooy mooy tey par exemple Guy Marius Sagna wax na dëgg si je laisse je suis d'accord avec lui je cède à la pression il y a aucune pression c'est la vérité après quelqu'un me dira non c'est la vérité à toi relativement mais c'est la vérité mënuñu dénoncer dara démb bërki démb bërkaati démb ñëw bëgg ko teg nag tey bëgg ko yoonal mhm. teg ko soi-disant oui si la personne a la Mais au moment où la personne a la compétence, il y a N personnes qui ont la même compétence ou même supérieure. Mmh. Ce hmm. qu'il faut et la meilleure façon d'aider la personne, c'est dugal ko fenn foo xam ni mën na fa nekk. Hmm. te war na fa nekk effectivement te du gêner du gêner à un certain niveau. Hmm. loolu loolu pour man yóbbal la boo xam ne kilifa yi mën nañ ci bàyyi xel. déjà nommé nañ ko bu fekkee ne aussi c'est lourd ou difficile ñu jëlee ko fa. mën nañ ko fa bàyyi en attendant de voir dans six mois. ce que la personne a eu à faire. Mhm. mën nga ko jox chance boobu six mois nga évaluer ko un an nga évaluer ko su réussiree xayrul on applaudira maa day um si si jamais ça arrive mu échoué boobaa peut-être di a nag def le choix escompté. Mhm. moo rectifier le tir. Mhm. dindi conflit d'intérêt mais le conflit d'intérêt dans un pouvoir ça Mhm. mais est-ce que lii dina doon loo xamante ne nii lu yombalal le président Bassirou Diomaye Diakhar fay ak premier ministre bi Ousmane Sonko seen liggéey puisque ñoom dañu yàggoon di dénigrer nguur gi nga xamante ne moo fi nekk dynastie Faye Sall ñu gis fi Mansour Faye mu ñëw ne saax ci biir nguur gi gis fi ki nga xamante ne moom moo di Alioune Sall mu ne saax ci biir nguur gi ba barki démb Alioune Sall moo ne du mérite moo tax ñu faloon kii di Mansour fay mais dañ ko faloon ngir neexal ko parce que goro la ñu jëloon ko jox ko yenn post yi loolu ngeen nguur gi fi nekk yàgg di ko dénoncer naan rupture rupture tey ñu ñëw teg acte yu mel ni est-ce que dina yombalal le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye liggéeyam. en fait en fait c'est, c'est moi je dis tout le temps il ne faut pas que le nouveau pouvoir prête le flanc ou donne l'opportunité à une certaine opposition de pouvoir les attaquer parce que qui peut le plus peut le moins. Mm-hmm. su fekkee ni mën nga plus rek war nga mën moins. Mm-hmm. il faut. fépp foo xam ni am na conflit d'intérêt wala lu ñoo ragal mu mel nu ni mel ñu moytu ko parce que cinq ans de pouvoir soo demee dans la glissade rek mën nga juum donc c'est pas une pression c'est pas euh, soi-disant way ouais, impérativement no dans le temps dans le temps lu ñu yàgg dénoncé la suñu bàyyi ñu ngi leen di fàttaliku le cas Maguette Diouf Abdou Diouf ña xam dëgg dañu doon wax ne président Abdou Diouf mosul nangu bëgg Maguette Diouf mu nekk ci ci état bi comme comme son petit frère mhm. musu kaa nangu mais circonstanciellement euh, dans le temps ama toujours est que lii yàq Afrique mhm. mu ngi jóge toujours ci de mauvais conseils et conseillers mhm. le président Abdoulaye Wade bi muy tàmbali y avait pas c'est à partir de 2002 2003 2004 sunu baay yi ñoom Moustapha Niass ak kilifa yi ñoo doon wax Abdoulaye Wade ne ko mais sa doom ji comme borom xam-xam la na ñëw jàpp ci liggéey bi loolu lay jur qu'est-ce qui s'est passé bi Karim ñëwee ci la problème yi commencé pourquoi problème yi commencé parce que diggante Karim ak Idrissa Seck après ba jiba ak ruubekat dugg na si. Hmm. est à savoir qui waa ba jiba kan moo dugg seen diggante ñan ñoo dugg seen diggante parce que c'est le fils du président am na influence gars yi commencé virer ci côté lan la jur ñu ne ah génération du concret lan la jur ñu ñu seen nguur. Hmm. donc nguur gu bees gi lépp loo xam ne dafaa nekk tache noire bu ko nangu. am na ñoo xam ne tey nommé nañ leen ça et là bu fekkee dafa am lenn lu ñu laale lu nekk problème ci dëkk bi. Mm-hmm. non na nguur gi rectifier gaaw. Mm-hmm. sur le foncier am na ci ñoo xam ne buñ ci laalee na nguur gi rectifier mm-hmm. ak leneen ak leneen am na ci domaine bancaire domaine enseignement ak yeneen ak yeneen su amee ay nit yoo xam ne laale nañ ci te nommé nañ leen pensant que mën nañu seen liggéey kilifa yi nañu anticiper gaaw rectifier le tir. parce que bu dul loolu loo ñooñu dañuy continuer di yàq yàq la ñu tàmm que mu nekk présidence que mu nekk assemblée que mu nekk feneen ak feneen na kilifa yi def attention gaar à ñi ñu teg fi ñu leen dee teg nomination yi nag kilifa yi def attention encore. Mm-hmm. ñi nga xam ne dañ leen a te bokkoon ci xeex bi. Mm-hmm. dagan na selon seen ay compétence ak seen ay expertise. Mm-hmm. ñi nga xam dañ cee nekk xeex na nu te amuñu compétence yi. ñu feneen fu ñu leen fu leen dee ut. parce que ay nitu confiance nag ngay àndal di liggéey. mu ngi noonu ay bu sa doom nag taxawee ak sa jarbaat ak sa yaay ak la ca des. da famille bi. mën na ma cee jël kenn. mu mhm. si jëlee kenn ñeneen ñi ñu xool. fan la ñu mën a nekk boo xam ni du déranger état mhm. mu ngi noonu yéen a ci seen émission valise diplomatique tey ñu daal fi dalal Pa Assane Seck mais Pa Assane